bismillah sama yaa sama ci tudd tudd boobu aramaani ka daal xeer mi naa nga jaar ñaar yi ka daal xeer mi laa jaalaata saaru makka la ba tey da jàng leer ala taaka naa dikkal na la hadisu xaaseeti soleil de sey man ndax mas ngaa dégg soleil tudd yàlla bu jënañ ko xaaseeti ji fi aji muur ndax mboolem mbindeef yëpp keroog mu muur leen ki ci des bu jéewu ni kanam yow may si def keroog xaa chance mooy xalaat lañu rek keroog pencam yàlla am par kanam yoo xam ne dañuy tarax bañ a tot mooy xéefalee ñu doon wax yàlla mooy yàlla bañ jàkkaarloo borom ba xam lañ ko def yëpp ba noppi dañu ngi teew fi kanamam te mënuñoo daw dañuy tarax bañ a tot rek ah ñu def ñu way fan lañu way jëf lañu naasi def ñu way fan lañu rek te yore par kanam garab daañu jëf-jëf bu jafe mooy bëjanteeg tàmbala ak gax yi ngeen di xeer liggéey bu bëri coono lool tos laa danañu xaraf naaram safara am yoo xam ne daañu tàng dara am xar kanam yoo xam ne ca safara su tàng sa lañ leen di tàng rek suuf saa dana nandal leen ñu ne ñu ci seen rek ah yéen suñu tab ci tàng rek danañ leen nandal ci seen rek dalee ca safara xam ne moo gën a tàng sax safara te danañ ko naan rek day sa loolu ngeen ñaa leen taamu ñam illaa ñun dara yin dara xam-xam duñ xam dara luñ lekk lu may dégg ñu tuddee xam-xam moom moom rek bu ñaan lu ñu lekkee moom la rek daara sax du ko lekk ngir def banam bu daldi ko nañ ne wu ñoom day laay suñu duufal ci mu kenn wala wax ñu jëriñ ci mu ñun jëriñ ci tuuti rek boobu ñam day ku ko lekk di tàng suur te lu yàgg yàgg rek du la tax a duuf rek te ñoom ñooñ safara nag dañ ko lekk ñu fiqi ba dafay tax ñu di ko lekk rek ndax luñ lekk lekk duñ suur ñooñu ñooy ñu doon wedd yàlla bu jéewoon na ay kanam yoo may dindi rek la naayimatun way rafet lañu naayimatun way xew lañu rek xar kanam yi nga gëmoon yàlla topp yàlla nag yàlla ñu ci yàlla boole ñooñu ñoom seen xar kanam dafay misek rafet lool ndax ñu ngi teewal waaw yëpp ñu ngi gërëm nañu di taw yaa ci jëf seen te kanam yooyu ñoom danañ kontaan te lañ defoon ndax moo den may yoon biñ gis keroog ñu gërëm seen bopp de bopp rek la gërëm sa bopp baaxe su jëna si nooy nekk lañ ci aljana yee suñu raaju kawe dañuy dëkk ci aljana te aljana dafa koy fekk maanaa kowaayam ci nit ñu gën a dayo kowaayam ci maanaa yi noonu de laa tus moo defu dégg yaa aljana laa yetun mbootoo kenn du fa dégg waxi caaxaan boo déggee baax ci àggana rek salaamul la fii ak nekk la jaar jana ay ñun teel a jaar yëpp si daal di daw teel yaa ngay daw ànd ak wàllu yàlla yi ci biir àjjana fu ñu dox ñu dox topp leen fu ñu leen soxlaa rek dox leen daal di fees tamit jëloon fay ba tëjee yee mel ni weeru badal ñu jëfal seen sang caa nekk la jaar jana suñu ay lal marfaat yi ñu yëkkati de te xam na dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak àjjana suñu ay lal marfaat yi ñu yëkkati de te xam na dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak barab yëpp mooy guddi nañu diggante bi day asamaan waaw waaw nag ci goble moo ko waxtu ñu tëral ak goble yoo xam ne ñu nga am rek ànd ak soole soole suñu fan jëm itam goble yaa nga rang ànd ak ñoom rek waa ci taar bu gën a jéggi dara rek bu soxal di daj naan rek taas ba dal di feesal boppam ci naan nga bëgg lem ndox lem meew lem lem lem sangara dal di tegu sa loxol bu keneen ba mu jëbale ko mu yem képp jëf ak naan doo naan dem jeex te mandiwu la léegi naqadi la doo naan ba mandiwu dara di ca def léegi naqadi la rek di tax a jàng moom yàlla waxut lu koy naqari dara dara dara dañuy tax a tëlaat ñu noonu la jàng war a mel léegi wala maa rek ak njëgënaay mos ko fa dañuy dajale ak njëgënaay yoo xam ne dañu leen a rangale ci wetu bopp bi ci wetu tànk yi waaw ak ci wàll bu nekk foo gis rek njëgënaay ñu tolloo rek garab yi ak i kat yu mag soosas yu ñu lal de ak kat yu ñu rab waaw xam ne moom la ñuy lal ci seen i def rek seen i seen i juróom de ñun ñoom loolu leen di nekk. yàlla ñu yàlla boole ci ñoom afala yanzuruna ndax duñu seet saaru makka naa leen fokk mu jàngal la yëpp wax na alaxira aljana safara dudd na ko mi ngeen di kattanal wéetam nag mi nga xam ne yàlla la sa moom rek moom rek yàlla afala yanzuruna ndax seet ñu ñoom xeexam yi ina ligi ñu mën ci gëléem ma waaye lu tere ngeen seet gëléem te fokk lu xam naka bindee ko doo seet bàyyi boobu xéemu boobu ni ko yàlla bindee nga xam ne ci bind gëlëm kenn la te wér na te moo yooyu jaamu du tax mu tudd gëlëm moo gën ci mboolem jur gi jur ak kat ku ko yar kenn ci ne nga ca bëgg benn nga yar ko ngir xawam loo lépp loolu xawam loo jub doole xawam loo gën a ko ko xayma wala nga di ko yar pour ñu utam soow ci moom lu ñu ratt gëlëm a jeex ko soow wala nga di ko yar ngir di ko war daa ba ñu war di tukki gëlëm la man ci loolu du dox def mu gudd te gaaw te du la sonal du tawat wala nga di ko yaar nit bés nga rey ko lekk yàppoot lépp lu muy rendi jëlema la gën a bëri yàpp wala nga di ko yaara di di jësëf say bagage boo bëggee tukki yi sëf yëpp gëlema ji daa ko sëf kon nag moo gën bàyyi ma yëpp ci ci maanaam mu nekk ba noppi dalu ne ca nag yomb yor moom ab ab bantam doo gëstoo na lu mu gën rek mën na jàppandi te mën naa muy xiif diir bu yàgg loo xam ne beneen bàyyi bu ko bu ko muñee moom dee mën naa muñ naan diir bu yàgg beneen bàyyi bu ko muñee dee te yi nga xam ne daañu yaa yaay yëpp jëlee na ci gën a nangu moom la ci yàlla gën a tàggat naka la ko doon yow la yóbbu ko bu fekkee ni gone nga gën a tuuti bu nga gën a sa gëlëm rek gëlëm nga topp ko te gëlëm mboolem yi ñuy war moom rek a ci nangu tëdd nga war mu jóg ak yow te moom gëlëm lépp lu mu jot booba xabar amul lu mu bañ lu nekk mën na jaadu na bi mu yombee noonu nag te amee njëriñ nii yàlla na ne dangeen yar guddi gët ngir taaru ca lakum fiha jamaalun hiina turixuuna wa hiina tasraxuun ñu gën a yar ak gudam pour di ko wan nit ñi lu du taar fi moom lépp lu ñu taarloo gëlëm a ci gën moo tax ba buuru njëkk ya ku ci daa bëgg a may may goo xam ne da ngay xar baax ngay maye téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm suñu ko amalee fii ci bàyyi bi dana fees benn bët nit ñi moo tax itam sariyaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko muy dee bakkan téeméeri gëlëm dara ñëw ca wala am waaye ci luy fees bët mu ne itam wa tahmilukum ilaa baladin lam takunu balighihi illaa bi shiqqi l-anfus loolu itam gëlëm a ca mën lu nekk rek bu fekkee ni war nañu da dem Makka rek la dundal la war nañu la yóbbu Makka daal gëlëm a ca mën bi mu boolee mel yooyu yëpp moo tax borom baax na laa afalaa yanzuruuna aseet ñu leen di jëm ci gëlëm kayfa xuliqa naka bindeef ko soo seetloo bindab gëlëm boobu nga xam ne ci bind gëlëm kay kenn la te wér na te moom rek moo yore jaamu de way la sama yi te ngeen koy jëm ci asamaan kayfa rufi'at naka yëkkatee ko de xoolal asamaan si kooku moom du gan ba du set mu wax ko xool leen asamaan si leen tiim am du wenn jën ñu ko yàlla yëkkatee dooleem rek wala li waay da ngeen seet jëm ci daj yi kayfa nu sibat naka xam tees ko wala lar yi dañ seet jëm ci suuf kayfa sutihat naka bindee ko rek wala ñu bind gëlëm mu meroon na la yi ma waxoon mu bind asamaan si leen tiim bind daj yi nga xam ne moo ne gisal la jara sa jamono bindu suuf si nga xam ne moo nekk ci salam su ngeen seetee loolu xam ne kattan lu mat moo def loolu ak xam-xam bu mat te ki def loolu kooku kenn la te wéet na te moom rek mooy rek di ko jaamu de war ñoo jaamu ku may rek gis nga koy tukki dafay waa gëlëmam xaaliban su waree gëlëm di dox ci àll bu fekkee am na dara ci xalaat buy xalaat lu mu njëkk a gis gëlëm jumbaat moo tax yàlla na teel a gëlëm gëlëm gi nga war a ko seetee jikko yi ma ci wax yëpp lu ci ne doy na la waa loo koy teg nga téye na gis asamaan dina téye moom itam mbaar mu ndayam lu wàllu gën nekk fi caasal ba léegi demul fenn nga tu fenn fotteeku fenn màggatu fenn nga xam ne loolu it kattan nga ko def boo fekkee ñu di ko jaam ba tey yaa ngi ci kaw gërëm nga la goo si gisal la yor wala gis la càmmooy gis dañuy dañuy taxaw foofu mokk leen si samp ak nañ leen sant ñu nekk jàng bi rek ñu ñëwee ñu ñëwee du dalee ñoom ña nga fa wax wax ci suuf muy dënd bi nga xam ne ci la ñëpp dëkk ci kawam soo seetee yooyu yëpp da nga dandi am dana xam-xam mooy ci def lii kenn la sa wér na te mooy yow jaam rek moo tax yàlla wax ne nañ seen yooyu wa zakir wa adeer yow yonent bi alaxira wéy na ak yàlla wéy na lu topp nag wa adeer yow yonent yàlla Muhammad ina ma an tana ka yow lu zakir ma yow nga def yow nag maa la yónni ngay waade lasta bi mufakirin ngir nga ajun ma maa la yónni ñoom santuma la nga forcé leen buñ bëggee nañ dem buñ bëggul maa ngay digaale ñoom waaye joxe rek moo la war laa la fi nag man ko laa ko dëgg nangu wa ko farata loolu daal Quran o yaa fi mu laa dina bugal ko yàlla ala mu bugal nak dara ma aji màggale waaye nag boo waadee ku gëm day baax na waaye ku gëm fekk naa moom danaa ko dugal ci mbugal moo xam ne mooy mbugal ma gën a màgg waaw mooy mbugalam safara la mbugal mu ndaw mooy mbugal mu jaag nara yéen jàpp bi waaye nag mbugal lan jawalaale inna ilayna naka jëm na fi mu yaa ba ma dellu fenn duñ dellu jëm ci kenn ci man la ñuy dellu si jëm may naa leen a fekk war nañu saa boobu xisaab seen ak fay seen rek ci yàlla la ñuy dellu yàllaay xisaabal boppam yàllaay faya boppam jiital na xabar bi ngi takk duñ dellu ci kenn ci man la ñuy dellu kenn du isaar man yàlla maa isaar la sama bopp yàlla bu mag ma moo isaar jaam bu nekk lépp loo ma sa def ak loo ma sa wax yàlla koy réglante yow ci pencam yàlla de